nga kibaroɗum so taala min ɓe dendirni an social news la a honorable hamad ba ay statement ola ñin bonɗi kayitandi a ñin banko molla komin ko a tala dokuwo ñin ñin kabirin ñin aya start pour kala place o nyeng anyeng ah, ah, ya place o nyeng han over abulo kono ate bala do ko nyeng ke kan nyaade la anum fada nyeng aya mun development la nyeng soto anum fada what can actually be done uh, woto anin ko um, uh, the, the minister of uh, tourism and culture uh, ngamera komin ko artisol fana mo mollete mi yalan komin ko nyeng ye a very big role la soto mi yalan komin ko nyanta la pour ka play uh, to that part so um coming albeyaje nyola nyamen doro in this noble platform artist o soto janne mi yalon komin ko a ah, gambia bela ya long duniya bela ya long annum ah, fanan a ah, ñagama ke komin jos pour ka lonne doron because of aɓe doku womin kekan mi yalon komin ko as far as uh, the music in the gambia and outside is concerned definitely nyancho you are definitely welcome to this noble platform Um, uh, Sister Linguère sa gan ngaa ngóog so topic boobu noonu laa daal xam nga lu ñoo def rek mooy we can just open the discussion and then discuss about the information that uh, the Minister of Tourism and Culture has actually uh, shared with the Gambian people. asalaamaaleykum beneen yoon àddina wërngal képp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndokkeel leen ñaanal leen yàlla waaye di ko sàkku ci yéen. Mm-hmm. ne woon nee naa leen saa ba mu ñëwee rek ñëw ak lu bokkul façon. tey nag Linguère fi mu génnee dafa nooy nepp tubaarkaala macha allah ndax ñaar ñi ma seex ku leen xamul dégg na leen waaye nag damay njëkkee ci gan gi nga xamante ne nii moom mooy gan ci biir gan yi. waaw soo soobee boobu ba nga roosee boo demoon noonu a nuyu naa la ya a paccake a paccake alislamu aleykum mbaɗi mon signoɗum ko tolu ñamboɗu men tan ɗin kanuɗi mbaɗo teri matan seeɗo min gispamin ko toppata to ɗi mbaɗi jaɓa jamboɗu gueƴa terone to maro ɗum mba toon ɓe like seriously allah ɓoyla ñancoɗo mo eke a paccake sam fettamaɗi nomin kolo kiɗo kuma kambo kawo sila manden kon o ndiyamo e ɗawaɗa kirwirma famoɗo ñasar mo ñonkolemolti kanuni alpha ko e mbin tan mboti ñasa tiñoti banna koye let me see properly wonon toñaji de um, kutubuga kono le gatta be dama mo potoch be ka fo janato uh-huh. abe ka je janato uh-huh. hani ni be laranda ko to uh-huh. abe ka fo janato kutubuga kono kale tuinara yo man nak dama doon yeeru me xolal yetna naa waxoon la ko ngani tey moom ah, xam nga ne soose dafa neex. sa nuyoo baax na. Mm. fi nga génnee nooy na mais bu la leeree ne loo bax ma ngeer ko rek mu neex. Mm-hmm. du ma la may dara. lii laa wax. daa àndal. Mm. moom ci moom xam nga. Euh, olof dafa am benn wax bu muy wax ku gis nen ne nen a ngi te damaa gis nen balaa may dem ci kim àndal euh, il faut moom ma def benn face à face bu ndaw ak moom waaw dëgg neexul parce que moom ni mu nuyee ci boppam man moom a njëkk a te xam ngeen man man lii dafay dafay dundal sama xol lii dafay tax sama xol buy neex dëgg neexul Eh? kontaan naa ci yow ni nga nuyooyee am na solo tubarkalla macha allah mais du ma def lu mooy xolal dama lay bàyyi tuuti nga dallu jëlal ndox mi naan ma tourné wax ak sa frère. Mm. dëgg neexoon. <laughs> liggéey waaye liggéey tamit gën la <laughs> ci loo ne. maa ngi di sant yàlla. waa di wax ñëpp ne ah di jos bu ngeen di toog mooy Bades manager ñanco. bég naa pour ñëw fii. Ah, because gis naa ne daal fii daf dee humba de. waaw waaw. man su ma lii la. ni kon ni kon non suñ baak bi si moto bi. ni kon fii la indi baag yi kay. lañ ko war a may waaye. waa kii kii ah. queen black queen ah. saa yaa na affaire bi saa yaa na ñancoo mu ngi ànd ak mané manager blaka Queen su fekkee ne dama ma woon ne fii nag ay tama ñooy nekk aram waaw la fi nekk waaw Bourguewe ne kon ne kon dinaa ñëw ma jàkkaarloo ak Bourguewe sa sista ngi fi dara weesuwul dama koy gunge ànd ak vidéo bi ba ca suuf ba ci moto bi non neexul waaw waaw mais mais mais mais oto ba mu ñanco est-ce que bi sax mu ngi si moto ba ah? est-ce que bàyyi ma ko si si office ba kii kay waaw su ma ko waxoon ni kon ni kon ni kon ñun pare nañ leen ah macha allah ah waaye kontaan naa waaw naa maa ngi gërëm ñëpp mhm. waaw di nuyu ñëpp tamit because aar bi waaw dëgg yàlla mhm. ah, lii lu rafet la waa because ñun dañ di plateforme si mel nii nii su ko defee ñu mën a wone